kon bu ñu toogee ci ay plateau télévision di xam ne wéy ay nangam ni diw ma ko kii kon léegi xanaa kon ku togg ceebu sax keccax sax xanaa kon Sonko moo tax nga togg ceebu keccax ci réew mi lan mooy ci yoonu Sonko ci loolu est-ce que Sonko moo dem ngor pour tirer ay bala yu kenn xamul est-ce que Sonko moo dem ngor wax ne terrain bi fii lañ koy dagg joxe kii wala jox kële est-ce que Sonko moom moo di fekk manifestant yi li wax lii wala lee wala lee mais réew mi ku fi nekk gis ñoo xam ne dañoo am ngor amoo droit ne da ngaa am ngor man ni ma amee droit bi sama yaay Aïda Mbodj am ngor ci réew mi ma ne yaay Aïda Mbodj ku am ngor la te képp kuy doom ci réew mi ba nga yaay Aïda Mbodj nekk sa yaay parce que daa am ngor te wane na ko mhm. ndax ci biir coalition Yewwi Askan la nekkoon mhm. kon noonu la ko président Ousmane te képp koo xam ne yaa ngi ngor dese ngor ba tey ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm bu baax ci ngor googu nga dese kon waa ngor ñu ngi leen di gërëmal a mhm. leer nañ beneen mooy lan mooy yow bu ñu jëlee dialogue 2019 les quatre ou bien cinq points de discorde mooy bi ñu le chef de l'État warta nekk chef de parti dañ ko jox à du chef de l'État bi leen ne parrainage CEDEAO dañ ni ñu ko génne dañ ko jox arbitrage du chef de l'État euh, la modification article L29 L30 L31 L32 dañ ko joxoon chef de l'État bi ñu leen unique bi aux euh, aux élections présidentielles nga xam ne day yàq xaalis parce que ñoom ñoo ne am nañ plus de 300 partis ci réew mi ñu ne au bulletin yu bëri ay 50 bulletin yoonam nekku ci parce que loolu intéressé wu ko mu teg ko fële à côté mm. mais yaakaar naa ne tey bu ne woon dialogue loolu la war a indiwaat tegaat ci taal bi mm. beneen mbir cinq cent jël def ci dialogue boobu noonu fan la mujjee mm. France daal ni xëy amul benn njëriñ mais tey bu ma jëlee 500 def ci dialogue 2019 mais kon 2023 su ma naree jël def ci dialogue du ma dem régler scanner bi nga xam ne mu ngi Kaffrine paan hôpital bu Kaffrine scanner dafa paan nga réglé ko ndax dafa panne zone centre tey hôpitalu Kaolack hôpitalu Kaffrine hôpitalu fatik seen escanaire yëpp a paan kooku kooku réew mi ñoo ko soxal na ko aujourd'hui yéen da ngeen di fay électricité da ngeen di fay ndox leneen ak leneen xam nga ñaata euh, la ñuy fay par jour pour la dette on paye 4 virgule on paye 4,7 virgule milliards par jour l'encours de la dette est de euh, en 2022 est de 12 696 milliards donc, pour l'année 2023, on doit payer au moins 1694 euh, milliards, 4,7 milliards par jour. Vous fait, Sénégalais. Vous avez fait vous avez le Vous avez marchandises y a vous avez tax lolu motax à bo ci boutique jënd sax 1000 francs 2000 3000 4000 5000. mais vous mënuñu ko wax ci euh, selon vous. dem ci table bi bi. wax mais c'est ça ñun lolu lañ wax. que askan mhm. ça devrait être nga mais mané jafé jafé askan yi ngay lim ah, ko à travers non mais du politiciens uh-huh. parce que politiciens ñom tay biñ am kenn ci politiciens bi wax

Euh, ñu jël cent milliards milliards. ñu jël cent milliards def ko ñu fexe bo mm. li nga xam ne moom mooy béykat bi saako engrais bi doon jaw daaw benn vingt cinq mille francs wala trente mille francs du ko jar. Mm. et que disponible moom mu am ko à dix francs wala à sept mille cinq cent francs. Mm. nga xam ne béykat bi nga xam ne moom moo dëkk Koutiaba wala mu dëkk tey Paafa mu fexe ba nga xam ne. li nga xam ne mooy càccum jur gi day jeex ci moom. Ah. au lieu que muy jël policier yi di ko teg ci kaw policiers yi tey loolu moom moo nekk le véritable dialogue. man je pense que loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu intéressé mais à ce que vraiment réew mi delluwaat ci nga xam ne moom mooy réew maanaam naataange réew naataange ñu delluwaat foofu. est-ce que yaakaaroon ne du ngeen di ngeen yegg foo xam te ne vous serez obligé de dialoguer. non mais obligation lay nekk ci yéen. mais nous pour ngeen dialogue amaana pour mën a dem ci. ci mais nous chaque jour on est né dans le dialogue on a grandi dans le dialogue Maria Sagna kan moo ko rey fii lañ et jusqu'à présent plein de mu ont été bu léegi amu les 14 personnes les jeunes qu'on a tués en 2021 jusqu'à présent ñu ngi ci ba léegi ñun déggu leen ci wax ainsi de suite tey ñaata jeunes ont nekk ci biir prison yi plus de 200 et quelques 500 euh, et quelques personnes mm-hmm. avez dit ci loolu secrétaire général Bassirou Diomaye Faye est en prison. est-ce que mus ngeen ma dégg kenn ku benn bokk bokk yaakaar ku ne lii def nañ ko Ahmed Suzanne Camara barke dem lan la fi wax Ousmane Sonko dañ ko war rey. kenn waxu ko dara comme si de rien bu ñu neexoon pourtant leneen ak leneen te pourtant yàlla xam ne defuñ ko barke démb Moustapha jaxate lan la wax nit ñii dinañ leen faat. ñii dinañ leen yóbbu seen kër ñii dinañ leen xaw ma def lan moom defal na boppam ba pare plan bu pare barke démb ki toogaatoon télé doon saaga nit ñi euh, toog ak Moussa ci am ak préfet bi mais loolu c'est des faits yoo xam ne yéen teg ngeen ko bët alors waaw mais seen président Ousmane Sonko mi nga xam ne di di menacer les magistrats naan fii lu fi nit liggéey na nga xam ne tu vas payer la justice la justice en tant que telle loolu yàlla moo ko waxal boppam mooy yoon mooy droit ça n'a rien à voir avec une personne qui incarne la justice je prends un exemple Donner l'information est un métier. Mais la manière de donner l'information aussi, c'est un autre fait. Aujourd'hui, ci Journal, journaliste yi ku am nga sa préférence parce que peut-être nous avons joxe information bi na mais ci biir aussi magistrat yi am na ci ku interpréter. Euh, la justice en tant que telle elle est là mais l'incarnation fait problème les gens qui incarnent la justice donc qui ciy gis c'est une commande politique je donne un exemple. je défie tous les magistrats du Sénégal nañ ma wax benn procès en appel benn procès bu ñu en quarante cinq jours atte la yóbbu la appel en 45 jours fi ci Sénégal. procès Khalifa Sall appel bi non la de de de bokkul 45 jours. dem hmm. ko nga jël. mais mais Samba. 45 jours amul Sénégal les annales les annales de la justice sont là dañ ma ko alors li la don doon né est ce que bu ngeen yegg fo xamné parce que li nga wax non, bu ñu la ko arrestation yi nga xamné sen lim bari na wax nga ko légui euh, des gens qui sont du côté du pouvoir oui. Mm-hmm. yo xamné souvent ñu yëkëti kàddu bu mënon na tax si de l'autre côté buñ pouvez ko yëkëti won ñu tek leen loxo ils ne sont pas peut être inquiétés C'est yoon ci lolu ñu nangul mais est ce que yegguñu fois xam aujourd'hui euh, bu ñu cour suprême euh, sagam sax di ngeen dem cour parce que vous avez appelé à une désobéissance civile que gëmatu leen justice dootu ngeen nangotu justice yegguñu foo xam ne pour bok faaw dialogué mënul ñak ci yéen mmh. un dialogue avec qui avec le président de la République qui a, qui a fait appel au dialogue pour six mois ou bien pour huit mois oui nous aussi on doit dialoguer on doit dialoguer avec le futur président de la République et le président Ousmane Sonko ah oui. mais lui il ne mais qui, beaucoup... cest qui dire que ki moi, a woote dialogue ki ne peut-être beaucoup... aujourd'hui si si Macky Sall était à son premier mandat. Mm. mu bëgg a à son second mandat su boobaa mu ne damay woote dialogue pour ce second mandat. mais il organise les élections. bon il ne doit même pas organiser les élections et l'autre, loolu dafa que ci. Euh, dialogue 2019 bi que le ministre de l'Intérieur warta organiser élection on peut pas être juge pour le moment on n'a pas une personnalité maintenant eh, merci beaucoup, vous l'avez dit. Donc, c'est pourquoi on doit avoir une personnalité indépendante qui doit organiser les élections. Moi, je pense que c'est l'essentiel. désobéissance civile. Oui. Le 16 également, nous avons un procès. Un mhm. procès Vous désobéissance civile pour le 8. Mhm. désobéissance civile également pour pour continuer. mais mhm. le 16 le procès Bobo. et d'après les gens qui ont dit, Ousmane Sonko doit se présenter le 15. wala ñu est ce qu'il y a un xaar à euh, Bobo xam nga mag euh, wolof dafa ne. Hmm. wuré wa dem na këng waxu mag dem na ndëñ taali. maanaam ci wuré dafa commencé gul. wuré wi commencé gul. Mm-hmm. te du am yoo xam ne nañ nekk fii Italie di ko wax yooyu. on est là gis nga le pouvoir est au canon. Euh, le 15 que mën nañu ko jëli. je ne sais même pas je ne sais même pas Ousmane mm-hmm. Sonko ngi noonu. le président Ousmane Sonko il est là. Mm. waaw il est là gis nga ñun lii dafa nekk un projet boo xam ne c'est un projet qui xamné ñun daf ñoo jaral lu nekk ci réew mi gis nga ñu gis Sénégal fi kilo yapp jar fukki kilo 1000 francs kilo litre jar 200 ñu liggéey am ay tool yu baax am ay am am ainsi de suite ainsi de suite protéger les Sénégalais. mais xam justement on est dans ça. justement comme projet Il faut la leen tolle. et mm-hmm. ça vous tient à cœur. Mm-hmm. te ki ngeen dit, jamono ji génnagul ci wàllu yoon. Mm-hmm. en tout cas pour mu dem présenter wu ñu nangul ko candidature leeragul. ndax amu leen plan. Eh, vous pensez que vous pensez que Ousmane Sonko. ou bien ce sont les personnes qui vous pensez que non non vous pensez que Ousmane Sonko. Mm. bi mu nekkee 15 ans aux impôts domaine. Vous bu fekkoon tu ci wàllum là, la woo yoon la yoon yoon amoon na dara dara dara de ko mënoon il nga yaakaar yeneen dossiers yi nañ ci nekk di wax loolu lañ ciy jël téye ni mm. un projet est incarné par une personne ou bien par des personnes mm. et à leur tête quelqu'un mm. et ça c'est une représentation symbolique gis Ousmane Sonko il la tête est coupée il a il a réussi sa mission xam nga il a réussi sa mission oh à côté de lui au moins il a plus de 1000% Ousmane Sonko je prends mon exemple personnellement man est-ce que vous ngeen ma c'est par l'esprit la générosité et le la pensée du président Osman Sonko que nous avons une symbiose une synergie d'action pour nous dans ce projet là et que tant que nous ngi fi et tant que cette tête là est devant nous nous koy dire...